di liggéey heure koo xam ne fonction publique arrangé wu la. Mhm. ah nga dem privé. dem privé mu jeex tàkk ah c'est facile. beneen bi mooy mm, euh, imam imam Dramé bi moom dama bëgg sax ñu waxtaan ci. Mhm. ndaxte njiite réew mi di son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ngi def ay visite di am itam ñu muy recevoir. Mhm. bi mujjee ah moom mooy bi nga xamante ne nii moom mooy bu waa jàngu bi. monseigneur dem na këram seeti ko famille omarienne. waaye nag am na boo xam moom mu recevoir. Mm-hmm. mooy ku ñuy wax Charles Michel. mu jur coow ñuy dem banaan xanaa dafa am benn agenda caché bu wàllu LGBT bu nekk ci ginnaaw ndax maam Matar Gueye la ñu gis mu def tamit conférence de presse di ci wax ak ñeneen ak ñeneen yow ngay imaam di koo xam da nga yàgg xeex wàllu woowu. ay valeur waaw ay valeur surtout. Mm-hmm. Euh, ban jàngat nga ci def également ak bi nga déggee mbir mi ndax amoo lu la metti itam. aji man nag. Euh, dama li am li ñuy tuddee la part de des choses noonu ngeen koy waxee yéen tubaab ngay xam waaw xàmme daal xam xàmme mhm. xam nga xam moom am na solo mais xàmme it am na solo dara gënu ko sax parce que adduna bi dafa am fu fu ñu jëm mhm. anglais yi dañuy wax ni the word in your hand mhm. loolu benn proverbe anglais la arab yi di wax ni al alamu bayna yadayk waaw ah, adduna bi benn village planétaire la boo xam ni li ñuy tuddee mondialisation dafa am réew yi di demalante di dikkalante ci wàllu économie c'est important parce que boo liiree livre vert livre vert bi xaddaa fi bind livre bu am solo la maa ngi wax képp koo xam ne nii livre vert la livre vert bi Xaddaafi bind mm-hmm. mu ngi ko tuddee alkitaabul axdar wax na ci lu bëree bëri ci wàllu mondialisation ak nan la ñuy fexe ba culture yi jaxasoo ak kenn ku ci ne garder sa culture ba du du yàq ci say gëm-gëm ak say pas-pas dara. kon li ma bëgg a wax mooy àdduna bi tey kenn mënul wax ni doo jëflanteeg yenn institution internationales yi. Mm-hmm. parce que waa jii ngay wax ñu koy tuddee ni borom ñaari tur yi la. Ah, Charles Michel. Charles bi muy ñëw ci réew mi ñëw fi indaale fi kasketu ngóor jigéen maanaam ñëwu fi ni damay dem Sénégal pour wax waxi góor jigéen wala damay dem Sénégal pour discuter ak ñoom ci programme mu góor jigéen loolu foo mu leer waaye daf fee ñëw pour wax ak Sénégal ci mbirum économie yaa ngi dégg. jëflante daal jëflante en tant que koo xam ne Union européenne la fi représenté. Mm-hmm. ñëw Sénégal di ab état. ab alternance bu bees am fi. ñoom ñuy ay partenaires Afrique Sénégal bokk ci seeni partenaires. ñoom Union européenne. ñu war a ñëw président bi recevoir leen comme ni mu la war a recevoir yow. comme ni mu war a buur bu Arabie Saoudite. comme ni mu war a recevoir euh, Mame Matar Gueye moomu di citoyen ah. comme ni mu ma war a recevoir yaakaar naa ni. loolu mooy le vrai débat. kon jarul coow. waaw jarul coow ci ku xàmme. jarul coow parce que dafa baax ñu fàttali senegal yi lan mooy suñu position ci loolu. fàttali leen fàtte xaju fi. maa ngi rappeler bu baax koroog bi nga xamee ne waa ànd sàmm jikko yi maa ngi leen di nuyu au passage. ku mel ni kër Mbuub ah imaam Silla ak kale nu mu tuddati. Makhtar. Makhtar Sarr Makhtar Sarr parce que man ànd saa ma jikkoy membre la membre bokk naa ci fukki membre yi njëkk a adhéré. Hmm. ah oui loolu baax na ñu xam ko coow li bari na mais li ma ci xeex nag bari na de. Hmm. ah archive yaa ngi fi ànd saa ma jikkoy ci cellule communication bi laa bokkoon bi koy soog a teg. macha maanaam képp ku mus a jóg tudd góor jigéen ci réew mi demal ci archive yi attaqué naa la man parce que ñun yooyu mënuñu cee changer position. waaye ñun it ñi ñu àndal seen position daf cee leer dafa leer le président Ousmane Sonko korog bi ñu defaree ànd sàmm jikko bi ñu defaree seen mémorandum yóbbul ko ko booba ñu ngi woon wax ci cadre yeewi askan wi waa ànd sàmm jikko yi ñu ngi may dégg imam Babacar Sylla mu ngi may dégg moom ma nettali lii parce que man fekk moo woon jotaay ba nee na ma bi ñu agsee ci ay moowu lu mel ni genre hmm, waaw genre. nga xam ni yëngaloon na réew mi. genre kay yëngal na réew waaw bi ñu agsee ci moo boobu ñu ni ñun mémorandum bi ñu leen di présenté dañoo bëgg a xam yéen yeewi askan wi lan mooy seen programme ci affaire ngóor jigéen bi ñu ci foofu am benn leader bu mag la bëgguma tudd turam mu ngi woon ci biir yeewi askan wi commencé di jóg bëgg layal genre naan non genre moom niñ ko déggee. tubaab yi ñoo ko déggee nii waaye nangam nangam commencé rek comme ni tubaab yi di def pour jéem a jéem a nax gaa yi Ousmane Sonko ci boppam bi nga xam ne tey mooy actuel premier ministre di coordonner la gouvernement ah. jóg ni ko hé sa waay génnal ci li nga nekk xam nga yow mi dëkk Bawol xam nga baat boobu. génnal ci li nga nekk. ñun gëmuñu xalaat yooyu. Mm-hmm. lépp loo xam ne méngoowut ak sunu culture. dañ ko teg ci suuf. dañ koy teg ci suuf. kon débat boo xam ne ñun bañ ko dépassé yàgg na. demal ci biir programme bi projet bi. projet bi ma jàmbal jaañ di bañ a dégg dinañ ci ñëw. projet bi boo demee leer na baat yi boo xoolee indiwuñ sax baatu genre sexe rek lañ indi. kon débat boo xam ni jàpp naa ni warul du problème waa ji président daf ko dalal en tant que partenaire économique te réew boo ko xasee ba yor mënoo ni am na ñoo xam ni. seen i gëm-gëm ak seen i pratique yow sa yoon nekku ci yow li la amal solo mooy mu bu fexeel ba buñ la influencer ñoom ak seen agenda te gëm naa ni ñi jiite réew mi tey loolu seen conscience tranquille na ci kon maa ngi rassurer sénégalais yi encore une fois. yaa ngi dalal seen xel. ni leen loolu c'est des faux débats. Mm-hmm. c'est des faux débats. débat nekkuñu ci loolu ñun ñu ngi ci valeurs yi réew mi indi. waxuma valeur yi diine yi de. Mhm. parce que réew mi boo nee ay valeur dañoo yaakaar ni diine moo fi indi ay valeur mhm. diine am na valeur yoo xam ne fi la ko fekk. Mhm. valeur yu mel ni fit ngor jom fulla fayda mbañ rus yooyu fi la ko diine fekk. ñun valeur yooyu la ñuy incarné fas yéene koo jaay Sénégalais yi. am na solo mais du ay affaire góor jigéen mu des nag di woo nit ñi tamit ñu am tolérance. tolérance ci kenn ku nekk ci réew mi ñu bàyyi la nga wax sa xalaat ci ni réew mi di doxee c'est important démocratie moo maye kenn ku ci nekk la nga la nga jàpp ni moom nga war a liggéeyale sa askan wala moom nga war a def sa participation ci société bi ñu bàyyi la nga exprimer wu ko librement moo tax man ma Matar Gueye d'accorduma ci kenn di ko attaqué. Hmm. Mame Matar man demaluma fenn yow xam nga loolu bu dee ni lenn rek laa ko mën a jox respect. Hmm. parce que man bokkuma ci ñiy fàtte démb. Hmm. démb ku ko fàtte rek doo gor. dafa am suñu société fu mu tolloon Mame Matar Gueye bokkoon ci ñi nga xam ni dañoo daan jóg naka jekk nag di taxaw ah di dénoncer. ay anti valeurs yi nga xam dafa am ci réew mi yaa ngi dégg léegi lan moo tax kon ñu bugg koo xañ loolu il faut ñu bañ a dem ci ñu bañ a dem ci xola mhm. ci fanatisme il faut ñu dem ci équilibre xam ni société équilibre moo koy doxal d'accord ay diw wax na nga génn tontu ko tontu bu radical déedéet da ngay xool li mu wax mamata dégguma fu mu tuddee jomaay yàlla rek moo tax may wax dégguma fu mu ñu tuumaalee li ma dégg mu wax ko mooy dani waa ji ñëw na ci réew mi te ñëpp nangu nañ ni ab góor jigéen la kon ñun population bi yëpp réew mi nañ ànd def bloc ci wetu président Diomaye pour xool tubaab yi bët bu xonq coy ni leen mën nañoo waxtaan ci lépp mën nañoo discuter ci lépp ba mu des programme góor jigéen man lii laa dégg ci waxi Mame Matar Gueye kon Mame Matar euh, leader d'opinion la nañ ko bàyyi mu joxe xalaatam parce que loolu mooy démocratie. d'accord démocratie kenn amul droit ni man maay joxe sama xalaat keneen du ko joxe. bàyyil ma téye la kon ci ci wàllu audience yi. waaw man na beneen audience bu jur coow. Mhm. mooy bi le président Bassirou Diomaye fay dalal ñi nga xam te ne ni ñoom ñoo nekk ci secteur privé bi. Mhm. ku mel ni sax sëriñ Mboup am na nu mu waxee. Hmm. mais mais mais secteur privé bi ñu recevoir leen ci jamono joo xam ni coût de la mooy ni ñuy dundee dafa cher. Hmm. Euh, te ñooñu ñooñu ñoo fi nekkoon di ay syndicalistes di ay mag itam donc euh, yow visite boobu ndax danga bokk ci ñi nga xamante ne ni jàpp nañu ne ñañu dalal xëy na mën nañoo dalal ñeneen ngir waxtaanee ci liñ doon wax mooy dund ko cher bi loolu day wane vision bi nga xam ni président de la république am na ko euh, jibi hmm. réew ab génération moo koy tabax hmm. réew état benn pàcc la ci réew dëgg la bañ nañ ko bañ naan secteur privé hmm. kon da gis ne am na yeneen i secteurs yi fi nekk réew mënoo ko tabax te doo ci boole le secteur privé. Mm-hmm. réew yi nga xam ne tey dañoo développé. Mm-hmm. réew mu mel ni Amérique tey boo fa demee dañ lay wax ni sax alal ji dëgg dëgg dëgg du état moo ko yor mais nit ñi ñoo ko yor. Mm-hmm. le monde arabe. boo fa demee dangay gis ay multi multi milliardaires. yoo xam ni dañuy créer ay millionnaires. kon le secteur privé lii ñu yëkkati ñoom dañoo am responsabilité historique pour hmm. bokk teg ci loxo pour mu nekk l'intérêt général euh, ji bi am réew du caaxaan réew du affaire xaritoo mm-hmm. du affaire ñoo bokk parti c'est du sérieux quoi euh, réew dafa sérieux quoi réew mooy képp koo jàpp ni mën na laa apporteel dara ci réew ma moo xam ci wàllu développement la moo xam ci wàllu sécurité la moo xam ci cohésion sociale la moo xam moo xam moo xam kooka devoir nga am yow mi jiite réew mi pour tàllal ko loxo ngeen ànd jëm ca moo tax Bassirou ak gouvernement xam ne mënuñoo développer réew mi sans le secteur privé moo tax ñu boole leen ci xam ni sénégalais boo xam dafa yore milliard am. bëgg investir ci réew mi. yow en tant que état kay li nga war a def mooy yombal ko ko. te yombal gi mu ngi tàmbalee ci ngeen am prise de contact nga dalal xelam. xam ni ko yow mi nga xam ni ay réew li ñu to lañ tuddee ay bourgeois. réew moo dem dafa am. déggoon naa président Ousmane daan ko wax. xam nga ñun dañ ñoo diaboliser woon diaboliser ñu ba ñëpp ragal ñu. malheureusement xam nañ ni nag ñun ñoo gën ci ñoom tey le secteur privé parce que yoon wi ñu bëgg teg réew mi ñëpp a ciy gis seen bopp parce que réew mi boo fexee ba ñàkk jariñu googu nga teg ko fexe ba corruption jóg ci réew mi dëgg léegi nit ñi dañuy concours développement kenn ku ci nekk gëm nga ni boo liggéeyee sa sa alal état du ko nangu mmh. état daf lay yombalal sa alal nga man koo investir ci réew mi nga dëkk ba pare nga amaat ay rentabilité yu gaaw mhm. loolu rôlu état la mhm. moo tax loolu moom lañ doon xaar te ñi am ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ ñëpp te xam société ni muy doxee rawatina tey réew mi fi mu toll nga xam ne Macky Sall li ëpp ci alal réew mi rawalee na ko yóbbu ko bitim réew mhm. loolu mooy dëgg te dinaa ci ñëw il fallait les multimilliardaires yi nekk ci ci Sénégal ñi nekk ci diaspora bi yëpp nag tey ñoo war a ñëw jël seen alal investir ko ci réew mi état bi accompagner leen ñu mën a créer ay emploi ñu mën a développer le Sénégal parce que réew état rek du ko tabax état benn pàcc la gouvernement day coordonner rek gouvernement day wane yoon mais développement dëgg mu ngi nekk ci secteur privé bi yaa ngi dégg kon ñu ngi dalal xelu ñëpp bu fi kenn di tiital kenn réew mi kenn du fi tiit parce que réew mi ñëpp a ko bokk képp kuy ab sénégalais te yor sa say loxo set nga yor xaalis bu leer ñu ngi lay wax soyez les bienvenus welcome li anglais yi wax welcome dal leen ak jàmm dal leen ak jàmm kon nañ dalal xelu nit ñi ñu investir réew mi ñiy jaay ginaar kon ne di jaay ginaar ñiy jaay nen kon ne di ko jaay ñi ne ci ciment bi kon ne di ci nekk na na nga nekk sénégalais rek même boo dee ab africain am na ñuy wax waxi di bot di wante xeet yooyu amu fi du fi am sama mbokk guinéen yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu au passage parce que ñoom ñu am solo lañ ci réew mi parce que bari na loo xam ni koo dégg mu koy wax tukkiwul waaye ku mus a génn bitim réew dund ci réewum jàmbur ay at dinga nga respecter étranger rawatina étranger boo xam ne sax du étranger entre nous ñi xam histoire xam na ni Afrique fii ñëpp bokk tubaab yee ñëw séparé def ay frontières yaa ngi dégg tey ñu ne Gambie bu dul woon colonisation benn réew lay doon Guinée gi colonisation moo ñu séparé kon il faut ñu xam histoire Afrique. boo xoolee bi ñuy teg ñun suñu ministère ministère des affaires étrangères et réintégration africaine. Mm-hmm. loolu baat bu am solo la buñ dara taxaw. Mm-hmm. parce que loolu ñu mel ni ay Cheikh Anta Diop dañ cee sonnoon. Mm-hmm. pour dajalewaat Afrique. comme ni Afrique nekkee ay morso tey. ñu am benn leader boo xam ne tey dafa incarner espoir ci Afrique. muy le premier ministre Ousmane Sonko chef d'état Afrique yëpp. am ci moom complexe kon kooku dañoo war a profiter ci leadership am pour jaay Sénégal Afrique jaay Sénégal àdduna bi kon réew mi ubbi nañ ko pour ñëpp képp ku say loxo set laa wax mm-hmm. war ngaa mën a ñëw liggéey ci réew mi mu des nag droit yi nga xam ni nag droit yi nga xam ni képp kuy ab étranger da nga ko war a fay ci am réew loolu c'est le minimum man mii dund naa Égypte durant ma fay nekk nekk étudiant damay séjour dama koy jënd. quatre séjours. même bu la ko état di di jox dina am fu ñu ko dagg wala mu nekk ay accord entre réew ak réew. ba nga yëg ko daal mais réewum jàmbur moom kenn waru faa nekk. te doo jaar ci te yow amaloo njariñ réew ma. loolu beneen débat la mais débat wu xeet moom baaxul ci Afrique te Afrique bëgg ko te ñun bokkul ci suñu politique ñun au contraire suñu politique mooy. réintégration africaine. d'accord kon nañu dalal xelu nit ñi gëm ne réew mi buñ ko bëggee tabax dañuy am dañuy fexe ba te commencé nañ ko déjà CEDEAO ngi nii boo yoroon carte d'identité euh, Sénégal fu la neex dem hmm? yooyu ay accord la yu ñu signé kon kon débat boobu jógoon na fi. Mm-hmm. mais foo débat la. Mm-hmm. li am solo mooy sénégalais yi. Mhm. nañu fexe ba li suñu yeneen mbokki étranger yi di liggéey ñoom ñu nangu koo liggéey. d'accord ndax bu ñu demee Europe dañ ko fay liggéey. d'accord imam c'est ça waaw. Ah, imam hmm. sànq ci biir wàcc hmm. ma dégg nga waxi koppar. sama hmm. xelam fu mu dem. déjà démb.